mbokki salaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziyaar leen rafetlu seen ànd ak ab Ablaye Naar le seen animateur tey dibéer dimanche fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2023 di guddik altine bi 22 jotee ba tegal ay simili lañu jot xibaar ni marché Ocass mi ngi tàkkaat mu nekk foofile ca Pape Ginaar waaye li tubaab bi wax prise de peur que de mal maanaam tàkk tàkku bi demul na mu daan demee ndax bi teel naa fay lool yi même bu fekkee benn place rek tàkk na ci sax neexul ci xol waaye demul na mu daan demee xibaar bi teel naa tas nit ñi teel a ñëw wàllu si naka nooy itam teel naa agsi ba tax mu teel a fay mbokk yi jamono ji nag ñu ëpp li ñuy laaj moo di jot nañu def taxaw daal di laaj ana lan mooy taal marché Ocass wax dëgg yàlla kenn ku nekk war ngaa sa bopp ngir gëstu xam lan mooy taal marché Ocass yomb na lool marché bi tàkk na fay nañ ko tàmbali nañoo liggéey coo ko ci diir bu gàtt ñu toogaat ab diir marché bi tàkkaat te ba tey kenn du la wax lii mooy taal marché bi jot na nag ñi fiy liggéeyee seen wërsëg nekk fi ñu def taxaw seetlu ubbi enquête xam lan mooy taal marché Ocass sant leen gërëm nañ ci déglu gi teewlu topp gi jërë ñaan jàmm di ko sàkku ci yéen jërëjëf